Sénégal 4 TV yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. Vous voulez gan nga ci kër gi nag bouton abonnement bi te bul fàtte la cloche de notification bi ne ngir bañ tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage. non fi ñu toll nii du ko jël xam nga fi ñu toll nii bari na bëri na ñu si bëri Yékini mi ko daan jël boo ko yóbboo du du ko jël Modou Lo mii di roi des arènes boo ko fa du ko jël waaw même Reug Reug mii sax boo ko fa yóbboon du ko jël waaw Reug Reug mii rek boo ko fa du ko jël foofu ñu paree fay nekk ñu ay xale yu ndaw ñoom ñoo fay nekk ñi ngi xam ne dañoo jël parce que bañu ngi sax ba garage yi bokkul fële par ngemb fee dañuy samp fan lañ koy defee suuf si lañ koy defee ñu samp la fii kenn du la fi daan kon bokkul see nga foofu galaaj yi ngeen wax si bëre yooyu la gën a feeñ waaw fii nag moom mbër yi ngay bëreel presque doo ko gis ba di ko mën na jekku yenn kii wala suuf soo xam ne maanaam kenn xamul fi nga koy jëlee nga ñëw indi ko si stade bi waaw maanaam doo am accès dugg fa suul fa sa galaaj ak yooyu ñun senegal lañ nekk xam nañ ba pat xam nañ simple ak yooyu yëpp nit day dem jël victoire am téye ko si loxoom ba noppi doog a ñëw bindu. daan Modou Lo daan Modou Lo sa waay mo mo Modou Lo Mod Mod Modou Lo Modou Lo buñ ko ko ña ñàddalee ba mu dee kay bu ñëwee daane ko noonu buñ ko ñëwee ñàddal ko ko ancien lutteur yëpp nekk ci ginnaawam ku nekk dem andi butéel papaam Aziz Ndiaye ah ah. jàpp ci yëkkati def ci trois cent millions pour daan Modou Lo mais loolu ku ko def ci mër nga daan ko daan boobu waru leen waru waru waru leen sax jibile daan Modou boobu waru leen sax jibile yéen balaa ngeen ni daan mbër Sénégal yëpp jàpp ci bu ci Sénégal yëpp jàpp du ngeen daan mbër billaahi wal kitaab yi lii dama koy kitaabu ñëpp a ciy jàpp ngeen soog a daan mbër ñun xam nañ nu ngeen nu ngeen nu ngeen amee seen victoire xoolal nu ñu def Yékini Yékini dañ ko rey ba mu dee rendi ko ngeen ñëw doggali wuy ma noonu ngeen di def tamit noonu ngeen def Modou Lo Sénégal yëpp a ci jàpp communicateur traditionnel waa kër Aziz Ndiaye ñoom Tafa Gueye ñoom Baboy euh, mais ñëpp ñëpp ñoo si jàpp rey rey Modou ba mu dee bàll ñëw yeggal yi contre giri tamit noonu ngeen def ba ngeen taxaw di ko wax kii sa jabar la tey lu la neex def ko waaw ginnaaw gi ngeen am beneen mbër bu ko bu ko fi def ñu wuy ma euh, am ñu dégg leen làmbu séeréer yi eh, moo gën a métti parce que làmbu séeréer yi moom eh, da ngay gis cent personnes yoo xam ne eh, ku nekk ak sa façon mbër ak ku nekk ak sa façon bëre quoi waaw xamantewu leen dangay gis kii di bëre lii kee di bëre lale xamantewu leen mosu mosu mosu ko gis mosu leen tase mosu leen bore nga ñëw tey tey da rek abi bi sifle nga daan ko ngay def noonu di def noonu ba làmb ji jeex takk nga jël làmb ji yóbbu sa kër nga demaat feneen même soos nga demaat feneen même soos ñoom Yékini loolu la doon loolu la doon def ñoom nii loolu la doon def quoi à chaque lamb waaw ba keroog ñoom ñuy dugg ci ci ci lutte affaire frappe mooy loolu ah nga jël kooku nga ne Yaxya nga ne nga ne Balla Gaye moo ko dàq bëre <laughs> te Balla Gaye commencé commencé bërëm ci ci lutte ci lutte avec frappe commencé ko foofu mbàppatul ah <laughs> mosul bëre ci làmb séeréer yi mooy loolu. Oh, yow fi may waxee di ngeen fa dul déggee wala ngeen fay dégg ba pare du ngeen ko nangu dama ne Balla Gaye mun bëre bi ngeen wax ne moo dàq bëre Sénégal loolu laa ne laa munta nangu waaw parce que deful dara ci làmb loo xam ne lu moromam defut waaw waaw mais asantuma mbër yi fi daje leen def leen drapeau chef de l'état dem fi équipe nationale nekk fi roi des arènes anu ñooñu mais ñooñu mënuñoo taxaw mënu mënuñoo nekk devant euh, kii Balla Gaye nekk devant ci ñooñu mënul nekk waxtaan nag wax dëgg ca ki nga xam ne trophée yi am ci bëre muy séeréer rek équipe nationale ak ay génn euh, représenté Sénégal yëpp nga raafale ko léegi ñu jël Balla Gaye mi nga xam te ne roi des arènes la ko fi jël après wuy wuy ma ñàkk ko ngeen ne moo fi dàq bëre non quand dañuy waxante dëgg nag. waaw mais làmbu olof man gëmma làmbu olof parce que fii séeréer soos ngay wax dañ dañaa nekk si àll bii tas bu ñëwee fii olof yi xaw leen a rey waaw Moustapha Gueye def na fi nu ne séeréer waaw loolu xam nañ ko gis nañ fi Ousa def na fi nu séeréer làmbu du question ni làmbu Sénégal la dëgg la dëgg la séeréer lañ ko xamee mais làmbu Sénégal la waaw séeréer si nag ñoo ko gën a bëgg. ñoo ko gën a respecté ñoo ëpp liñ koy def parce que seen dëkk yi moom la ñuy waaye tamit heure buñ tasee ba dugg si yeneen gars yi dañ leen fay daan si bëri na séeréer su bëri de si àll ba dañ fay toj mais bu ñëwee dakaar duñ duñ toj. ñun waxuñu ay Sénégal yooyu xam nga arène bi lañ wax arène bi tey Balla xam nga tey ñëpp jànguñu école ñëpp jàpp jànguñu alxuraan. ñëpp def ñu métier tôlier ñëpp def ñu métier mécanicien Balla Gaye c'est pas forcé mu dem bëre euh, ay chef de l'État yooyu bëri bëriwu fa bu fa bari woon nu muy demee yooyu ngeen di calculer làmb yam yam nga xam ne am na jotu dem fa ba mu fa daan dem daka daan jël daan na fa ku nekk ponkal yi nekk fii ci kaw yëpp bañ fa dajeek ñoom waaw maanaam da leen defal affaire c'est très nga gis nit wax kii Balla Gaye ay dama ko daan jël bu leerul rek ñu jox ko kii nangam nangam mais doo léegi ma dégg ma mbapat ku nit ne ma daje naag Balla Gaye daan ko jël bu leer non non non non gisuma ko kon kay mën na bëre ñuy dem chef de l'état yooyu yëpp ku si Balla jàpp daan la kon amul sens amul sens si bala Gaye ko dafa am loo xam ne yombul woon quoi xaw ma léegi ndax dina dina yomb léegi waaye xaw ma mais dafa am loo xam ne yombul woon maanaam nga nekk mbër ci ci ci lutte simple yi nii. ba ñëw dugg arène ba nekk ci roi des arènes yombul woon xam nga yombul woon lu jafe la woon loolu la Yékini def loolu la Maga def aussi waaw ñooñu ay sax xam nga Maga sax mënul bëre gis nga Maga mënul bëre Maga doole la amoon waaw lu mu am ci làmb yëpp doole doole la ko amee waaye waaye du du mën bëre moo ko ko may taxul woon mu mën bore dafa amoon doole rek am ginnaaw. waaw loolu moo ko may lu lu bëri ci làmp ci ci ci lutte ci lutte avec frappe bi waaw nii nag dafa mën bëre dafa dafa jaar ci lutte simple jaar na foofu def na foofu lu nekk ci làmb ji waaw mooy loolu bi mu demee ba dugg arène ci la commencé nag di def attention ci làmb ji di def bu di def attention bañ a daanu pour bañ a daanu rek xam lu muy def lu muy lu muy def rek mu nekk loo xam ne dafa dafay wóor. noo fii moom naa la xamal leen c'est que moo amul nii moo amul ñëpp nangul ko ni moo dàq bëre fii parce que dégg naa am am ñu ne Manga mu munul bëre doole jëf fi nekkoon muy bësaata rek Yékini mi li mu fi def lépp macha allah te am na ñoo xam ne nañ mënul bëre kon ñun tey bu ñu nee Balla mënul bëre duñ metti li ñuy metti mooy te taxaw maanaam lépp lu bala def commencement ba fin nga salteel ko daane mus musa daan mbër kum jekkuwul du la daan te ñëpp si bëre leen daan tey li fi loo ñëw timbër mu daw génn saako bi bala fekk ko si bala ñëpp da leen a jàpp jàkkaaroog ñoom xeex ak ñoom encaissé ba noppi daan yooyu yëpp kon man ay ay bëreem bu ñëwee mystique la man daw daf may jaaxal. Cheikh Sarr man sama différence ak ñoom foofu lay doon ñoom dañoo yaakaar sax ne man damaa bañ Balla Gaye te yàlla xam na ne yàlla mënti mu xam ne bañuma Balla tey jii ku ma woowoon tey jii nga laaj ma ci qualité Balla ma wax la ay qualité ma ku ma laajoon tamit ma ma wax la dinaa la wax qualité yu ma xam ci Balla dinaa la wax ay défaut yu ma xam ci Balla Balla comme mbër yëpp la mel il a des défauts am na ay qualité am na ay défaut waaw mais moo dàq bëree ci làmb ji wala moo buñ ci làmb ji loolu du ma ko d'accord loolu laa dul d'accord ñoom waaw buñ ne c'est un champion nag c'est champion waaw comme yeneen champion yi tey nga daan suba ñu daan la gannaaw suba nga am victoire gannaaw suba nga nekk ci jafe-jafe comme mbër yëpp comme mbër yëpp mbër yëpp day am moment yoo xam ne da nekk ci jafe-jafe soit que nga gaaw jafe-jafe yi nga gaaw génn ci wala wala wala mu wala wala wala wala mu mu mu continuer yàgg ak yow te moom ay jafe-jafeem dafa yàgg ci moom parce que moom depuis bi mu daanee tafaatin ba léegi eh, bi mu daanoo ci Bombardier ba léegi mu ngi noonu daan ci Eumeu seen toog fi ñaari at gis nga ren dafa année balance ba léegi Balla Gaye mu ngi ci mu ngi ci position bu lëndëm donc vrai que ne daan na Modou jël bi ñëpp di coow eh, nekku ci position bu leer de Balla mii newu ci position bu leer yow yaa ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV mooy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi te bul fàtte activé walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bi si nekk et maintenant bon visionnage.